barhaamu baa un waraa un alifun thumma haa mi mun mujjal faydu jox ñu ñuy naan. yàlla ubbee na téeram bi ubbi boo xam ne bu yéemu la ubbi boo xam ne rëng-rëngaloo na ay xalaat te muy nekk nag baat yu simple yu kenn maasut alif rek laam miim bi nga xamee ne gëstukat yi jéem nañ ko gëstu ba sonn ci lool dal nañ dellu xam ne liikat xam lu muy tekki bokk na ci li yàlla jagoo moom daal moo ko bi yónintaam nee nañu bokk na ci mutashaabah yi nga xam ne dañu lënt ci xelu nit te waaye ñun dañuy gëm ne rek ne ci yàlla lay jóge ci li wóor itam mooy mbir la moo xam ne yonent bi dégg na ko moom te moom lañ doon waxee te duhut ne liñ wax fii yépp daf nu ko war a wax lépp loo ci xam ne yàlla daf ko sant mu wax nu ko wax nanu ko te jot nañ ca te xam nañ ko lu mu ñu waxul rek dañ koo santut mu wax ñu ko te li wóor mooy moom dégg na ko ndax moom ku ñëw la woon te ku xamoon la saar wi ci njëkk wàcc mooy suratu Maryam ba muy wàcc ba Jibril ñëwee def ne kaaf yonent bi ne xam naa ko mu ne haa mu ne xam naa ko yaa mu ne xam naa ko ayin mu ne xam naa ko mu ne saad mu ne xam naa ko Jibril ne man xamaguma lu may tekki dañ ne naa la wax rek kaa haa yaa ayin saad mu ne waaye man xam naa ko kon boobu moo ci njëkk a wàcc alxajaasi moom dafay wax ne li wóor moo di ne comme yéefar yi dañ doon wax ne alquran jegewut ci yàlla yenente bee ko fi sos moo ko fi taxawal yàlla nag ne comme arab ngeen muy arab te moo ko wax mu indi loo xam ne du ngeen ko mën a wax te du ngeen xam ne muy tekki te arab la ndax alif laam miim baati arab la kon nag loolu loolu dafa ñëw pour lottal leen wa ala kullin tafsirul masuur mooy allahu aalam bi muraadi yàlla xam lu mu na ma ci baasin boobu ba maasu ko daalikal kitaabu boobu la téere muhammad di jàng muy bii laaray ba det benn xeeti sikk fii di nekk ci téere bi ndax hudan njub la lil muttaqin ñeel ñi ragal yàlla téere bii sikk nekku ci te am ñu ko weddi sikk ko ñooña la ñuy seet seen mbir téere bi moom sikk nekku ci ki ko sikkal kooka moo am lu ñuy seet ci moom comme la ma daan wax rek ni benn waaye ne man ima élimaan ji doyu ma ma ne nag yow lay seet sa mbir da wax ne élimaan ji doyut sharia ndax jam nañ ko ci nangam ak nangam waaye bu doyee sharia ba mu teg ko fi nag bu la doyut léegi yow lañuy ñuy seet sa mbir yaa doyut téere bi it noonu rek la ku mu doyul yow la ñuy seet sa mbir waaye moom yàlla nee na laa rey ba fii hudan lil muttaqin njub la ñeel ñépp ñu ragal yàlla ci téere bi la ñuy jubee mu taqoon yooyu nag la alquran di firi ana ñan ñoo melo melokaanu taqwa ba téere bi war leen a jubal ne allazina mooy ñi nga xam ne daf la bëgg a wax fii ne nit ñu ñetti xaaj lañ ku gëm yàlla ak ku weddi yàlla ak ku gëmut weddi wut muy naafeq ñi gëm nag ba am taqwa ñoom la téere bi jubbanti moo tax mu ne allazina ñi nga xam ne yuminuun danañu gëm bil xëy bi ca yu faddu ya ku dee danga nga dekki nan lay dekkee xam waaye gëm nga gëm ko rek aljanna am na nu mel xam waaye foog nga gëm ko malaaka am na ndax mas nga koo gis xam waaye foog nga gëm ko alladina yuminuuna bil xëy bi ndax yàlla la ko wax rek nga gëm ko ñoo ñoo am taqwa dëgg ndax li leen yàlla wax yëpp dañ koy gëm doonte teguñ ci seen bët wala ñu mën ko xam wa yuqimuuna te ñuy taxawal salaata julli julli bokk teg taxawal julli julli ay jëf la taxawal julli dafa am yeneen yu ko jiitu njëkka am imaan njëkka am taqwa def sarti julli laab ci xadas laab ci xabas sutural sa awra jublu xibla jub bay tooñ kooku mooy taxawal julli bokkul ak julli ak boppam nag te yàlla waxut ci téere bi fenn ne julli leen dafa naan taxawal leen julli fi mu wax julli leen yépp dana julli leen ci kaw yonent bi sallu alayhi wa وينفقون تنيدون لهم ما تلني لنا قمنا رزقناهم ورسقل من لينكو دني أم إيمان بالغيب دني دف إقامة الصلاة لن أمك سنيوي دننكي جوخي تي الله يتخ والذين ما ينقى قمنا يؤمنون دنن يقم بما أنزل كلا واتشفنك إليك جمتي يو وما أنزل أغلى واتشفنك من قبلك لولجيتو ويوقنون أن يولوا بالآخرة هم يوم yuqinu na ñuy wóolu dikkuk alaxira ñii laa wax gëm nañu al alquran ji gëm alquran yee ñu wàcce woon ci yonent yi lay jiitu te mu wóor leen ne ngi ñëw ulaayika ñii mel nii ala huddan yàlla jox na leen garanti na nekk ci njub min rabbihim bàyyi ko seen borom ulaayika ñooñu humu ñoom al muflixuun ñoo di way texe xaajum ñaareel mooy yéefér ak seen ak pay buur ne inna ladina naka ñi nga xam ne kafaru weddi nañ sawaun aji yem la alayhim ci ñoom ana zartahum war ngeen len ama lama ton zërhum wala waro len ñom dal la yuminuna duñu gëm aan zartahum war nga len am lam ton zër wala waro len ñom dal hum ñom la yuminuna duñu gëm nafiq ngok waar koog ñàkk waara yam iman daal nekkul ci xolam ndax xatama linkaañ na kaste na laahu yàlla ala qulubim seen xol yi ba iman du ci dëgg dugg wa ala yàlla kaste na seen nopp ya def ca gishaawatu na muuraay wa ala absaarihim yàlla dëpp na seen gis ya waxu seen bët ya de waaye seen gis ya gishaawatun muuraay ndax bët du gis gis ci xol lay nekk moo tax ab basar lay wax foofu ak basira waxut waxut euh, al aynu wala hum ñeel na ñooñu kon adabun mbugal moo xam ne azimun aji màggalamu ci métti ñooñu seen mbir leer na weddi nañ rek al mbugal nag leen di xaar ñele gëm nañ ñoo texe am na nag ñu compliqué ci diggante bi mooy gëmuñu waaye weddi wuñu kenn xamul seen mbir ñoom laa ilaha wula wala ilaha wula doo leen boole ci yéefar yi ndax ñu ngi julli waaye doo leen boole itam ci jullit ñi ndax amuñ imaan loolu mooy naafeq alquran ak leen di melal ne wa naa si nekk na ci nit ñi man koo xam ne yaquulu day wax ne aman naa gëm nañ billaahi ci yàlla wa yow mi ak bis baal axiri bu daa ji mujj wa ma hum déen ñoom bi muminin ñu di way gëm dañ ko wax rek ciw làmmiñ waaye yàlla mii leen bind te xam leen nee na gëmuñu koo xam ne nag sa gëm dañ koo teg ci saw làmmiñ waaye nekkut ci sa xol kon ka ngay wax ci ci saw làmmiñ ne gëm nga kon ma ngi mel ni danga kaa bëgg a wor moo tax yàlla ne yu xaadiuuna ñu ngay jéem a warante laa yàlla walladina amanoo ñu wor ñi nga xam ne ñoo gëm ndax ñu ngi leen di war ne ñun gëm na ciw làmmiñ te àggut cim xol bu ne waaye wa maa yaxda'uuna ñoom day duñu ñu wor illa anfusahum lu mooy seen bopp wala wa maa yuxaadi'uuna du ñu warante illa anfusahum lu mooy seen bopp rek lañ koy def wa maa yashuruun ñoom yëguñu ne loolu ci seen bopp rek lay teer buur ne ñooñu kon fi qulubihim nekk na ci seen xol ya maradun wopp woppi lan woppi kéefër woppi lan woppi sikk ak naafiq loolu feebar la fa zaadahum dolli leen law yàlla maradan wopp yàlla itam dal di jël beneen wopp bu gën a bon teg ko ci seen kaw moo di ne dootuñu gëm mukk wala mu ñee leen na adabun mbugal kon ëllëg alimun mu daa ji metti lu ko waral nag bi ma ngir la ñu nekkoon yekk di buuna di fen ko moo tax yàlla teg leen loolu naa fekk comme dafa compliqué du yem ci benn fiqra yàlla ngi wéy di waxaat ci seen melokaan ba tey mu ne wa ida qiila ndem waxeef na lawum ñeel ne la tufsidu bu leen yàq fi lardi ci suuf xaaloo ñu ne innama nahnu naka ñun kat muslihuuna way yewenal lañ waaye duñu yàq allah waawee innahum ñoom hum ñoom tigi nag al mufsiduuna ñoo di way yàq ya koo xam ne kay dangay wax lu nekkul ci yow danga yàq suuf ndax danga wor nit dugal ko ci loo xam ne du noona fekk danga koo wor kon yow yaay yàq nag walakin waaye laa yashuruna yëguñu ko wa ida ne waxeef na lawum ñeel leen ne amino gëm leen kama amana naka gëme naasu nit ñaan ak muhammad muy gëm goo xam ne gu sell la xaaloo ñu ne ah ñooñu duñ dara anu minu ndax danañu gëm kama amana naka gëmee as sufaha way de señ xel sufaha yooyu nga xam ne seen xel matut mooy ñu ànd ak muhammad nga xam ne doo rek a tax ñu ànd ak moom yaakaar nga ne ñun suñ gëm dana mel ni gëm ak ñooñu buur ne alaa waawee innahum ñoom hum ñoom assufaha ñoo di way dese ay xel walakin waaye laa yaalamuuna xamuñu xam nga ki nga teg dof boo sàgganee moom itam dof la la teg ñu ne ñee dañoo dof yàlla nag ne yéen tigi yéen a dof kii topp ku yàlla yónni di eh, jëfandikoo ndigali yàlla yi nga ne dafa dof yow nga weddi ndigali yàlla yi xëram yi sax demoo jaamoo ko comme yéefar ya yow da lànk da ngay feeñal gëm gëm gi ci làmmiñ ci nekku ci sa xol yow tigi nag yaa def bokk na ci seen melokaan ba tey buñ dajeeg yow rek wax jàmm wax lu baax buñ fa jógee rek du rek daal di génn ci lool Cheikh Al-Hajazi ne na am na ñuy wax ne loolu ñu ngi ko wàccee wa iza laqu ca naafeq yi jamonoonte nag yonent bi ne kii Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ak ñu ànd ak moom mu ne waaye déedéet ñu ngi ko wàccee ba péncam yàlla képp koo xam ne noonu nga mel bu nit toogee fi yow nga wax lu baax bu demee nga wax lu bon képp ku mel noonu rek mu ne yow lay waxee ne nañu abu bakar siddiq omar ak ali te ñoom ñëwoon ci ay abdullah ibnu ubay fekk ay yëwatan ko wër yu bari ba mu leen seenee ñuy ñëw mun leen xaal xaar leen sama gaay yi bu ñëwee ngeen gis ni may defanteek ñoom su ñëwee danaa wax lu neex wax ju taqalem ju saf sap neex ba lool fekk loolu nekkul ci man dama leen di war rek mu ñëw mu tëggaleen ni Babacar yaa ñaareel yent bi ci gàddaay gi yaa ko ñaareel ci xuntama yaa ko ñaareel ci lislaam yaa dundal lislaam yaa def nii def naa Omar ibnul Xataab yow yaay dàq seytaane yow yaa tax diine ji jëm ci kanam yaa leen mottali ñeent fukk ak Ali ibn Abi Talib yaay gaynde gi yàlla gi fu yenent bi soxla dina yaay jóg nangam nangam ba ñépp a kontaan ba ñu dem mu ne leen mu damay wax rek pour leen waaye du dara yàlla ne wa ida laqu bu ñu dajee lazina ñi nga xam ne amanu gëm nañ xaaloo ñu ne aman naa gëm nañ waaye wa ida xalaw bu ñu wéetee nag ila shayatinihim jëm ci seen sheytaane yaag seen bokkaale ya seen ñañ bokk ak kéefér ga xaaloo ñu ne innaa ñun maakum yéen yéefar yi la ñu ànd ak innama nahnu la ngeen déggoon nu di ko wax kat noonu mustahziuun way yejji lañu julit ñi rek waaye ànduñu ak ñoom allahu yàlla nag comme ku mat la moom du toog di yejji waaye yastahziu dana fayanteeg ñoom bihim ak ñoom seen ak yejji wa yamudduhum mu tëbbaleen fi tuxyaan mi seen bew ga yaamahuna ñuy déng déngi rek ba ëllëg ba ñuy dajeeg moom ulaayika ñi mel nii la dina ñi nga mooy ñi nga xam ne ishtaraw jëndee woon nañ dalalata ak réer bil hudaa ci njub képp ku am dara joxe ko jël leneen la rek da nga koy jaay jënde leneen buy ci luxal arabiya nag li ànd ak baa bi moom nga amoon moom nga amoon leneen la nga ko jaayee kon mu ngi mel ni hudaa lañ amoon waaye ishtarawu dalalata bil huda ah ku amam njub day jaay ko jëndee ko réer perte nga moo tax buur ne fa maa rabixat kon day tonahut amuñu ribxu de amuñu bénéfice de fa ma rabihat tonowut tijaaratum seen ak yaxantu wa ma kaano muhtadin boo koy taayul masdar da nga koy boole bu la neexee nag nga ne wa ma kaano nekkuñ muhtadin di way jub wala nga ne wa ma kaano muhtadin ñoom jubuñu ay lam yahtadu yàllaa ngi léeb nag ñaari léeb yoo xam ne ma ngi aju ci nafiqi mu ne nafiq daal booy seetlu mu ngi mel ni ku taaloon ab taal pour mu leeralal la far taal ba ne kuy yëbbaale say gët ba far gisaatoo ku doon wër leerul islaam ba gis ko far mu yóbbu la nga desoon ci imaan ak as néew nga am sikk kooku gumba na tëx na luuna wala nga ne naa fekk mu ngi mel nii ku doon mébét aw aw xëyeen di mébét ab taw mu xëyeen ci asamaan xeen wi ñëw lëndëm kërës mu ànd ak i dënnu ak i melax ba xeen wa saqi nag nga ne dënnu yi naruma cee dégg dara jël sa cati baaraam nag di di di sakk say nopp mu ne looloy nafeq mu ne ndax niir wi xéewal gi moo di alquran bu ñëwee euh, dënn gi ak melax gi dënn gi mooy tëkku yi melax gi mooy yi muy bégle alquran nag ku muy wàcc ci ñu ci yow wala ñuy wax li alquran wax nga ne duñ ko fi waxee alquran duñ ko fi firee duñ ko fi leeralee duñ ko fi waxee jël say waaraam def ko ci say noppane doo ko dégg nag mu ne loolu la nag mu ne dangay sonal sa bopp waaye fokk daa ko fi dégg loolu lay lépp ci naafeq mu ne melax ga sax bu ñëwee xaw na mën a yóbbaale seeni bët ndax dañ doon xaar melax pour mu leer mu ñëw far yëpp bale lañu amoon ca bastora si néew mu ne waaw seet leen bu alquran waxee lu neex ñu nangu waxee ci alquran lu leen neex nangu nañ ko waaye bu alquran waxee lu leen metti rek pour ñoom lëndëm na ñu taxaw loolu mooy kay dox ca taw ba bu ne kuy melax nga waaxu tuuti bu lëndëmee nga taxaw yàlla ne su ko neexoon day mu yóbbaale seen i nopp ak seen i gët yépp ndax yàlla xam nga ne mën na loolu loolu lay léeb ne masalahum seen misaal daal kamatali lëri ma ngi mel ni ki nga xam ne istawqada sàkku naa taal naaran aw safara te gu istafaala sàkkoo def la falama adaat ba mu leeralee maa xawlahu la ko wër dahaba deme laahu yàlla bi noorum seen leer gi wa tarakahu mu bàyyi leen fi zulumaatin ci lëndëm laa yubsiruuna nga xam ne duñu gisati summun way tëx lañ bukmun way lu lañ umyun way selmaxa lañ fa hum ñoom laa yarjoona duñu dellu si aw ka sayibin wala nga ne ma ngi mel ni aw niir wuñ doon xaar mi ne sama yi ci asamaan fii nekk na ci zulumaatun lëndëm wa raadun ak dënnu wa barqun ak melax ijalaw na ñuy def asaabium seen waaraam ya fii aadaanihim seen noppa ya mi ne sawaayiq ngir manuga ak dënnu ga xadaral mawti ngir wattandiku dee wallahu yàlla muxiitun aji xam la mu xam-xam bu léem bu mat sëkk bil kaafiriini ci yéefér yi yakkaadu dina jege albarqu melax ga yaxtufu di fëkk absaarum seen gis ya kullama adaa bépp bu mu leeralee lahum ñeel ma machaw ñu dox fii ca leer ga wa ida azlama bu lëndamee a lëndamalee alim ci ñoom xaamoo ñu taxaw walaw shaa bu neexoon laahu yàlla la dahaba kon mu demee mu yóbbu bi samihim seen déggee wa absaarim ak seen gis ya inna laa nak yàlla qadirin aji àttan la ala kulli shay'in ci lépp la bàyyi na loolu mu ñëw ci saxalil yàllug yàlla ndax yàlla nekk na yàlla ba fi dara nekk gut ba tey loolu moo am ibnu ataawulaay ne na kaana allahu wala shay'a maahu wa waata al ala ma alayhi kaana yàlla bi mu fi ne dara nekku fi mu ne ba tey it loolu rek la lenn nekku fi ak moom kii nag daf lay saxalal yàllug yàlla ci ay dalail yoo xam ne da ci teg sa baaraam moo tax mu ne yaa ayyuha naasu éey yéen nit ñi bu doo jaamu leen rabbakum seen borom nga ne kuy suñ borom mu ne alladi mooy ki nga xam ne kay xalaqakum bind na mu leen seetal yeneen yàlla yi kana la ci bind doo ko gis walladina moo bind ñi nga xam ne it min qablikum ñoo leen jiitu woon laallakum boo yéen te taqoon a ngeen ragal yàlla soo ko xamut alladi mooy ki nga xam ne jaala def na lakum ñeen leen firaashan mu dib lal ngeen di ci jëfandikoo ko dem ak dikk wasamaa mu defal leen bi naan mu dim téeg ca kaw amul bën bën du daanu bàyyi kenn yenuwu ko waa anta la mooy wàcce it min asamaa yi ci asamaan ma ndox ba bu ko téyee kenn mënul fexe mu ñëw faaxaraja mu génnee bi ci moom mi ne tamaraati ci ay meññitam risqan mbir mu nekk wërsëg lakum ñeel leen fala tajaalu kon bu leen def lillaahi ñeel yàlla moomu àndaadan ay ndend ak i nawle wa antum yéen a xam ngeen ne amul ndend ndax koo def yàlla wala koo teg ca kanam na nga seet ndax yi def na ko ndax moo la bindam déet ah manu ko ndax moo bind sa baay sa maam ah manu ko ndax moo fi def suuf si ñuy dox ah manu ko ndax moo talal asamaan si ci kaw ah manu ko ndax mooy wàcce taw moom day manu ko ndax mooy meññeel gàncax gi moom manu ko kon nag wa antum taalamuun kon ku ngeen ko sàkkal muy morom xam ngeen ne du moroomam moo tax mu ne fala tajalu lillahi andaadan wa antum taalamuun bàyyi na loolu mu ñëw ci ijaazul quraan alquran li muy lottalee mbindeef mu bëgga alquran alquran lu yëfër yi dañu ne ñu bari ci ñoom ci mushrikoon yi dañu ne alquran lii yonent bi tuddee alquran noonu lañ koy wax ñoom jógewut fa yàlla muhammad a ko def ba léegi am na ay tubaab bind loolu fi benn waaye bu bindoon benn téere histoire cinquième siècle histoire de l'islam bu ne alquran benn liyet na bu Muhammad bu ñaan Ousmane moo ko bind moo ko wàccee rek taalif ko tegal nit ñi yaakaar nañ ne comme ñoom ni ñuy bindee seen lin ji li mu leen neexee ñun noonu la def wala boog ñu jublu ci yàq rek alquran mii nag dafay lottal ba mushrikoon yi waxee ne waxu yonent bi la yàlla ne leen comme arab la ngeen di arab def leen lu mel ni moom ñu nit ñu seet su arab yépp gam-gamlee gam dendalee seen ñaari wax yi mu niroo tolloo yépp neexaay ak leeraay ak baax ñu xam ne dëgg la kon moo ko def gannaaw gi yàlla ne sax fukki saar laa waxoon waaye benn saar rekk indi leen ko waaye nag min mislihi laa wax bu mel ni alquran waxuma saar wu leen neex ndax mu Musaylama موم دون تعليف القران يرنتي بي كنت دي الكذاب فين كدبي عندي والنفي في والطاحنات طحنا والعاجنات عجدا عندي والنفي الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل من اللي رجلا لي لي دف رك دفناكو واي ني سيت ميرما يموت نيرو نياك صلى الله عليه وسلم yàlla ne kon nag atte bi mooy scientifiquement lay wax ci xam-xam wa in kuntum su ngeen nekkee fii raybin ci sikk mi maana zal naa ci la ñu wàccee ala abdinaa ci suñ jaam bi nga xam ne moom wàccewu ko sama jaam la man maa ko wàccee ci moom su ngeen ko sikkee faatu indi leen bi suuratin ci aw saar min mislihi wu mel ni wii ma koy indil wad'u na ngeen woo ci loolu shuhadaakum seen mboolem ñi teew seen jataay wala seen sangaya min dooni laay ñu duhul yàlla in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggu fa in lam alo su ngeen deful loolu walan alo te def ti leen ko ndax du ngeen ko man ah kon lu fi sës nag ku wax ne diw lii mën naa ko ñu ne def ko mënoo ko xanaa kon nag léegi mu ngi mel ni kon alquran def na taxaddi maanaa euh, défi la lancé te samp nay ndëndam ci kanam ne def leen def ngeen mënu leen kon nag li ci des mooy te delluhu leen gannaaw kon mbugal moo leen di xaar fattaqu ragal leen annaara safara alati ba nga xam ne waquuduha mattam ma tàkk-tàkkam ba annaasu nit ay nit la wala xijaaratu ak i xeer uiddat xareef ko lil kaafirin ñeel ñi nga xam ne ñooy weddi de kon na ngeen ragal xam ne safara wi leen di xaar mooy sakara safara wu ñu taalee ay nit ak i xeer ba mu tàng kon loolu la waajal ñeel ñëpp ñi nga xam ne dañuy weddi alquran naka noonu ñi gëm alquran nag yàlla déddale leen ay ak pay da leen dël ëllëg moo tax mu ne wa bashiri bégalal alladina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ baata bashara bu jëmee ci aw yiw mbég lañ koy fire bu jëmee ci ab safaan le lañ koy fire wa bashiri bégalal alladina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ waa amiloo ñuy jëf as salihaat farata yeeg naafila yi nga bégal leen ni an na lahum naka ñeel na leen jannatin aljanna yoo xam ne tajri dana daw min taatiyaa ci suufam al anhaaro yol nde yent fii la koy tàmbale di tudd yol nde yi yent yol nde yi nekk ci aljanna du ko firi du ko firi ba bu muy dem ci suratul qital dafay door wax la ne bi mi yol nde min maa in mi min asalin ila axiri waaye fii moom danaan anhaaru rek moo tax mu jamu ko kullama ruziqu bépp bu wërsëgalee fee leen min haa ca moom ca lekk googu min tamaratin ci laalo moom meññent la risqan mbir mooy wërsëg xaaloo ñu ne haada lii lasi mooy li nga xam ne rusiq naa lef na ko min qablu ci jëkk wootoo joxeef leen bii ca meññent ma mutashaabeen ak niroo ndax nit ku nekk ñam wim xam moom la bëgg moo tax ñamu aljana dañ koy nire léegi nga xamoon de <coughs> ndax mu neex la wala mu ñee leen fiyaa fa wala azwaajun ay jabar mutaharatun yoo xam ne yi ñu laabal la azwaaj moom jamu zawju la waroon a doon waaye comme zawju ci sharia du mu nekk jamu mu kenn lay doon moo tax ay jabar lay jamoo azwaaj ndax kee dafa amul jamu moom ndax du ko doon mutaharatun yoo xam ne yi ñu labal la ci laabal la ci xeeti gis deret ak sobe waxum ñoom xaaliduna yi sax lañu fiyaa foofale ci aljanna ja ak jabar yoo xam ne nga ñu set wecc de bay na loolu inna laa la yastaxi an yadriba masalan ma ulamaaw yi dañuy wax ne ba yàlla léebee tudd weñ mu léebati tudd jargoñ gaaña dañu ree ne xam ngeen ne lii niruwut waxi yàlla de ku toll ni yàlla di wax ci ay weñe ki ay zubaabu ak ay ankabuut loolu du waxu yàlla alquran bëgg leen a xamal ne yàlla dana léeb ci lu gën tuuti loolu mooy yoo li am solo daal mooy léebu yàlla ci alquran dana jubal ku nar a jub ku dut jub nag danga cey réeree ndax yàlla buy buy léeb di misaal lu mag dafay indi dëgg lislaam nga xam ne mooy dëgg su ko yàllay léeb noor la koy tudde ak leer ak ak duyaaw ak yu demee ki noonu waaye bu yàllay léebu ci seen bokkaale xiram yu xeebu yi dafay jël yu ndaw ndawaan yi mel ni aw weñ ku yooki jargoñ yooyu lay tudd yow nag sa dégg kon munta àgg ca loola lu xeebu lu xeebu lañ koy léeboo lu mag nag ñu léebu ko ci lu mag moo tax mu ne inna laa yàlla day moom laa yastaxyi du bay sadd aw léeb ngir kersa an yadriba ba muy sadd masalan aw léeb maa mu mën a doon ba udatun moo xam yoo la fa maa fawqaa topp lu ko gën tuuti ñu ne maa fawqaha duhut lu gën a mag ca kaw waaye lu gën a tuuti la ndax lu lépp lu gën a tuuti même technicien bi liggéey li gën a tuuti lii te cërim waraam am ko moo gën a jafe defar tubaab yi montre bi njëkk a defar daanaka nim néeg la toll pour ñu mën cee def aiguille yeeg moteur yeeg yooyu pour mu baax waaye biñ mënee ba mën a mën lu tuuti la ñuy def ci lépp nekk ca yàlla it noonu la moo bokk seetloo moom li gën a tuuti lépp la cay def ndax gis nga yoo melokaanu melokaanu ñey lépp bépp cër bu am ñey ñey am ah, am ñox ak geen ak yépp daf ko am ba pare mu yokk ci nag ñaari laaf yoo xam ne ñey amu ko ak li muy tuuti yépp kon loolu mbir a ngi ci moom moo tax mu ne baudatan moo xam yoo la fa ma fawqaa lu ko gën a tuuti fa amat lëjina ndaal ñi nga xam ne amoon gëm nañ fa yàlla mën a dinañu xam ne annahu naka léeb yàlla xaqu mooy dëgg min rabbihim bàyyi seen bàyyi ko seen borom waa ma léegi na ndaal ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ fa yaquluuna ñu nga naan maada araada ana lan la nam laahu yàlla bi aza ci lii masalan ci léeb ak misaal yuddalu dina réeral bii ci léebi kacireen lu bari wa yahdi dina jubal bii ci léebi kacireen ñu bari wa maa yuddalu waaye du réeral bii ci léeb bii illal fasiqin lu mooy way génn ña ak topp muy fasiq ya aadalaahi kóllëre yàlla min baadi misaaq yi gannaaw ak dëgëram ñi nga xam ne kóllëre yàlla gi dañ koy firi gannaaw bu mu dëgëree dañuy wor wa yaqata'uuna ñuy daggit maa amara la digal na laahu yàlla bii ci moom an yow la ba jokkeef ko wa yufsiduna ñu yàq fi laadi ci suuf ulaayika ñooñu humu ñoom alxaasiroona ñoo di way perte ndax perte daal mu ngi yem ci perte a ngi yem ci kër kër yi ci àddina ba àllaaxira duñ la dara mu ne loolu moo di perte yéen nag weddi gi ngeen weddi yàlla fan ngeen ko teg yàllaa ngi yéem nan lañuy ñuy weddee yàllug yàlla ak lim def yépp moo tax mu ne kayfa takfuruun naka ngeen di weddee bilaay ci yàlla seet leen li mu def yéen wakkuntum nekkoon ngeen am waatan di way dee ci seen diggi baay fa ahyaakum yàlla dundal leen ci seen roxumi iyaay su ma yumitukum ëllëg su ngeen dundee moo leen di rayaat ma yuxiikum topp yàlla moo leen di dekkal ëllëg ci bàmmeel su ma turjaxun bu ngeen dekkee yéen ñëpp def na leen delloo si lay jëm ci yàlla wa huwa yàlla lazi mooy buur bi nga xam ne xalaqa bi na lakum neen leen maa fi l li ci suuf jamian bi moomu mbooloo su ma stawaa topp mu jublu mu jublu nag ila sama yi jëm ci asamaan fa sawaawu na mu bind leen saba samawaati ñuy juróom ñaari asamaan wa yàlla moomu alimun aji xam la fi kulli cheyin ci lépp laf de istawa al arshi imaamu malikin radiallahu anhu li moom ahmad nee na benn waaye dafa ñëw ne malik yàlla kat nee na istawa ala al arshi kon xanaa yàlla dafa am place bu muy nekk te mooy arash bëgg naa daal nga firil ma istawa alal arshi Malik ne ko al istiwaau maalumun bi luxal arabia kooku du luxa wal kayfiyatu nag majhulun yàllaa ngi ca arash istiwaawu ku ne xam na ko nan la ca nekkee nag moom Malik ak ku dul Malik ñun way réere leen ko mu ne ko wa su'aalu anhu bidaa laaj ko sax nag bidaa la ndax fekk yonent bi ñu àndoon nag moom alquran dañ wàcc ci moom gisuñ benn hadis fu kenn laajoon luy istiwa istiwa al arsh kon laaj ko bidaa la daal di ne waa ji dim daal di yi dimbaleen ma ci waa ji na génn sama néeg ndax dafa ma bëgg a xuusloo ci mahiyatu zaatillahi te xamu ko moo tax mu ne al maalumun wal kayfiyatu majhulun wa sualu anhu bidaatun faxrijuhu an bayti yooyu composé ko kon nag yàlla rek mooy ki nga xam ne moo ñu bindal yi ci suuf yépp xalaqa lakum ma fil ardi jamian gannaaw ga suma stawaa yàlla dem dal di yemoo wala suma stawaa jalaal ne dal di jublu yàlla jublu ila samaa yi jëm ci asamaan fa sawaahunna mu bind leen fa sawaahunna duun mu yemale leen looloy luxa ja waaye luxa alquran beneen la fa sawaahunna mu bind saba asamaawaatin ñu nekk di juróom-ñaari asamaan loola nan la nekkee juróom-ñaari asamaan duwul li daqaayiqul axbaar wax naan bii weñ gu ñuul la bi përëm déedéet daf leen bind ñu nekk juróom-ñaari asamaan ci melokaan woo xam ne ñun mënuñu koo xam xëy na jotuñu ko noo xam ni mu ko nekkee waaye tudd na ko kon amee na noonu am na ci ulamaawu tafsir ñu wax ne euh, ñu wax ne euh, sept planètes yu mag yi yàlla bind nga xam ne dañuy daw di wër jant bi ku ci nekk sori ga sori jant ba ak wër gi nga koy wër nangami eh, ci nangami weer walla ci at wala ci nangami fan ñu ne degré boobu mu sori jant bi di ko wër foofa sama u la keneen ki noonu keneen ki noonu keneen ki noonu ndax eh, suuf si nu nekk nii moom benn biddiw la mu ngi wër eh, jant bi dana wëndeelu wër ko ci lu war a mat vingt quatre heures loolu mooy indi guddi ak bëccëg nga ne mooy degré yooyu ñuy soree mu ne loolu moo indi Eh, lolu mo indi ñu naan asman ci nangam bo demee ci bidiw melni mel Neptune nga xamné mom dafa sore sore sore sori ba bala mo jéxal falakam mu nekk ay wër yo xamné ne limu la koku mo nekk ci asman bi nga xamné mo gëna kawé lolu kawe loolu samaaw yi ñu bari ci mufassiroona yi lolu lañu wax ndax it eh, ulamaaw yi nga xamné ne ñoo toppatoo eh, géographie ya, su fekkee seen wax joju wër nak wërut lolu ñun xamun ci dara en tout cas sama yalla wax na ko neena jurom ñaar la ni mu nekkee nag bu ko géographie xamee affaire am la bu fekkee li ñuy wax du loola it moom am na donte dañ cee mun ta ak itam saba samawaat am na wa huwa yàlla moomu alimun aji xam la bi kulli cheyin ci lépp lëf bàyyi na loolu bu fekkee dafay wàcc cib téere bind doomu aadama dafay wàcc cib téere war a ko joxug nit nit kooku war na ñoo xam fan la jóge te euh, it yi philosophe yi ñu ngi bind ku ci nekk di indi ay xalaatam xam-xam bi gën a yées ci àddina mooy bu ñuy tuddee philosophie mu gën a yées ndax du xam-xam bu ami régal ku ne ngay wax lu la neex rek ak di weddi wante dara saxut fen kii day wax lii bu ñëwee kii weddi ko xam-xamu yooyu rek la doon tax na ba am na ci ñoom ñu bind comme ay Bernard Shaw yooyu ñoom dañoo bind ne doomu aadama benn microbe bu tuuti la woon di nekk ci ndox comme walax njaan am geen mu màgg di développé ba geen bi dagg ba yàgg mu mel ni mbott yàgg mu mel ni mbëtt ba yàgg mu nekk golo ba yàgg mu daal di jóg taxaw ak ki tànkam ñàkkub geen nekk doomu aadama ñu ne doomu aadama kon ci golo la jóge salaam Moussa bind na ci superman al insanul ala Bernard wax na ca nazariyatu tatawur wa aslul insan waaye yëpp ay ay wax rek la ndax wax joo xam ne doo am fenn foo koy foo koy teg lu may ci sa xel rek ndax itam li leen di weddi lu simple la su fekkee nit ngi jógee ci golo kon fokk danañ mës a jàpp golo goo xam ne ngi bëgg a nekk nit te pareegut ñu ne kii de léegi tey mu nekk nit waaye booy jàppee golo ni mel lay mel rek te ba golo yi jur golo loolu benn bi moo di ne su fekkee golo dafa avancé ba nekk nit kon nit waroon naa tardé far nekk golo ñu ne kii dafa tardé gis nga ko moom day nit la waaye léegi nekk na golo te loolu tam du mën a am kon yooyu amut nit mu ngi jógee ci mbindeef mu tudd aadama aadama mu ngi jógee ci suuf yàlla moo ko bind teg ko fi nit ñëpp nag foofa lañu jógee waaye jóge wuñ ci golo golo moo jógee ci golo nit jógee ci aadama looloy nazariya bi wér bi yàlla bëggee bind aadama nag mu fassiroone yi nee nañ yàlla dafa woo ay malaaka ne leen man de dama bëggoon a bind nit def ko ci kaw suuf mu ne malaaka yi ne ko ndax dangaa bëgg a def ci suuf ku mel ni ki nga fi defoon koo xam ne day tuur ay deret di yàq loola gars yi dañ cee déggee ne kon am na meneen mbindeef yu fi jiitu woon doomu aadama yu fi jiitoon aadama te ñooña baaxuñu woon xëy na ay seytaane lañ dañ bonoon bu mel ni seytaane te ñooñu yàqoon nañ fi tur fi deret ñu ne ñu ne lu tax loolu su fekkoon loolu amu fi woon malaaka du xam yàq ak tur deret banaan yàlla ndax danga fiy def ku mel nii kuy def nii def nii ñu ne dafa am kon ñu fi nekkoon dama ci kasful xijaab moom dañuy wax naan xeet yu ñu daan tuddee tàmmoog ràmm ndax loolu wér na am <clears throat> xadis rotu ci duñ ci mun dogu ala kulli xaalin malaaka yi ne nañ ko yàlla ndax danga nga def kuy tuur ay deret ak di yàq walla déet mu ne te ñun malaaka de gis nga nu fuñ toll ñoo ngi sell di la jaamu te nga banu fi yàlla ne waaye xam naa li ngeen xamut gis nga kooku ngeen yaakaar ne dafa bon su ñëwee mën na baax ba gën leen comme mën na bon ba seytaane te ne ko it mën na baax ba gën malaaka ndax malaaka du nelaw du lekk du naan du sëy du am doom bëggul xaalis amul dara amulu yaram ak leer la kooku bérébu mooy yàlla nekkut ci moom dama mi am bakkan ak ruuxu nag di lekk di naan di def lu nekk kooku bu notee bakkan bi ci lépp lu yàlla aayee ba farak yàlla mooy gën malaak ndax xeex na ak dara moo tax yàlla ne leen xam naa li ngeen xamut te nag ku am solo ki ci kii la laa koy génnee mu di yonent yi ci aadama mi laa ko nar a génne mu daldi tooyal suuf bind ko tën ko daldi bind ruuxu ne ko kaay dugg ñaari riwaaye la ruuxu ne ko déedéet man du dugg ci kii fii ku lëndëm duma ci dugg benn riwaay bi ne yàlla ne ko kon duggal ci doole ëllëg booy génn ci doole ngay génn mu dugg benn riwaaye bi ne yàlla dafa yebal ay malaaka kuróobi yoon ñu ñëw di ko di di di tagg yàlla te roxu loolu daf ko neex waxtu bu ne yàlla day neex roxu ba ñuy tagg yàlla rox gi kontaan ba dugg te yëgu ko ñu ñëw naan ko lakal majdu law zaharat lahul mulku ajmau la ilaha illa anta bu mu dugg kooku beneen riwaaya la law alam bi sixatiha kulli xaalin li ñu amal solo moo dina bi yàlla bindee mbindeef moomu daf koo xamal dara lépp lu nekk ci àddina amul tur rek mu xamal ko aadama di def nag examen bëgg woon malaaka yi ne kii gën a xam gi mu leen gën a xam moo tax mu gën leen mu woo malaaka yi ñu ne lii lan la ne xamuñu ko lii ñu ne xamuñu ko yàlla ne aadama wax ko aadama lii aadama ne lii de jaasi la sémmiñ la ndox la suuf la asamaan la lu ne ci rek aadama wax ko yàlla ne malaaka yi nakam ñu ne ko yaa la wax nga dëgg xam nga lun xamut xamunoo ne kii nii nii la nu gënee bay xam lun xamut mu ne kon nag sujjootal leen ko ñoom ñëpp ñu daal di sujjoot ci kanam aadama ngir màggal borom bi tabaraka wa taala ci luñ ko màggalee ci mbindeef mu am solo mii mu def mu ëpp leen xam-xam fuuf su ko defee am na ci ulamaa yi ne kon kat ndem yàlla moo ne woon nañ su jootal aadama kon su jootal nit euh, dagan na ndax yàlla moo ko santaane waaye gis nga ñàkk seetlu alquran tontu lañ ci biir yax bi xam nga ne loolu waxu ay nit ay malaaka la ko waxoon wa is qul naa lil malaayika malaaka ya lañ waxoon nañu su jootal aadama waaye mosu koo wax nit loolu mu ngi ci biir aaya bi jàng ko mu ne wa is qaala ba waxee ko sa borom lil malaayikati ñeel malaaka yi ne indi man dey jaayilun aji def laa fil ardi ci suuf xalifatan kuutaay ñaari pri la xalifatan mu wuutu la fi nekkoon te bon mën na nekk wala xalifatan man yàlla ma wuut wuutal ko ci suuf mu wutuma fi di wéyal samay ndigal waaye xam nga ne yàlla bu nekkee xalif aadama eh, bu nekkee xalifa yàlla taxul aadama mel ni yàlla nga ciy déggee nag ne xalifa wu nit taxul nga mel ni mu mel xalifa moom ki ñu doon jàngal da daan wax ne aj cam xalifa kay magal ci kër gi rek boo fa magee moom nit mënu ci dara yow la du du tekki ne mel nga ni kooka moom danga nga fay mag rek kon nag aadama it du ne dafa mel ni yàlla wala mu mën lool déedéet moo fi nekk rek mu xalifa wu ko fi xaaloo ñu ne ko atajaalu ndax da ngay def fiyaa ci suuf man yuf si du kuy yàq fiyaa ci suuf si wa yasfiku muy tuur di ay deret wa nahnu te ñun nu sabihu noo ngi sellal bi xamdika ci sa cant wa nu qaddisu nuy sellal laka ñeel qaala wax yàlla ne inni man aalamu danaa xam maa loo xam ne laa taalamuuna xamu leen ko wa allama xamal na yàlla aadam alasmaa turiya kullaha yëpp suma aradahum mu gaaral turiya ala almalaayikati ci malaaka yi fa qaala mu ne am bi nii yéen malaaka yi solo leen ma bi asmaayi haawulaayi ci turi yëf yi le in kuntum ndem nekk ngeen saadiqina di way dëggu ci loola kon da ngeen ko def xaaloo ñu ne ko subhaanaka sell ñeel na la laa ilma déet benn xeeti xam-xam la naa ñeel ñu illaa ma allamtanaa lu mooy la nga nu xamal ci la nu yem innaka naka yow anta yow alalimu yaay ji xam alxakimu yaay ji xarala ci say njëfteef qaala wax yàlla na ya aadam kon nag jàngal leen am biwum solo leen bi asmaayim ci seen tur ya falama am baahum bi nga xamee ne aadama solo na gaañe bi asmaayim seen tur bañ xam tur ya yépp xaala mu ne alam aqul yàlla ne leen ndax waxuma woon lakum ñeen leen ne inni man aalamu danaa xam xay ba samawaati li faddu ci asamaan yëpp xam naa ko wala ardéeg suuf wa aalamu danaa xam maa tubdoona la ngeen di feeñal wa maa kuntum ak la ngeen nekkoon yëpp teg tumoona di nëbba xam naa ko loola mufassiroona yi ne nañu ah, malaaka yi dañu doon nëbb ne eh, bu fi yàlla def keneen na leen fi wacc ñoom loolo lañ doon nëbb ci seen biir yàlla ne man nag xam naa li ngeen feeñal ci wax jéeg li ngeen ci nëbb yépp dara reeruma ci wa is qul naa jàngatal ba ñu waxee lil malaayikati ñeel malaaka yi usjudoo sujjóot leen xajaas yi ne na sujjóotu takrim la laa sujjóotu li ibaada li aadama aadama fa sajadoo ñu sujjóot ñoom malaaka ya illaa iblisa lu mooy iblisa moom abba bañ na wastakbara mu rëy rëylu wa kaana nekk na min alkaafiriina ci way weddi kon iblis bokkut ci malaaka ya boole giñ ko boolee ci malaaka ya naan is qulnaa lil malaikatu usjudoo li aadama fa sajadoo ila iblisa du tekki ne malaaka la kooku istisna munqati la ko nuxaatu yi di tuddee mu ngi mel ni ne fekkuma ci néeg bi fekkuma ci kër gi kenn lu mooy mbaam mbaam taxul mu bokk ci nit ña waaye moom rekk moo fa ne iblis itam loolu dugalu ko ci malaaka ya moom danañ jàng ca kanam ne kaana minal jinni kon ci jinne yi la bokk waaye bokkul ci malaaka yi waaye dafa bokk ca mbindeef ya fa amoon ca waxtu woowale waroon a dégg ndigalal yàlla bàyyi na loolu mu ñëw nag ci aadama bi ko yàlla bindee ba sottal bàyyi ko fi kan la fi nekkal nekk na fi ak seytaane moo di iblis ñaar ñii seytaane ak Hawa ak Adama ak jaan ñeenti mbindeef yi du ñu mën a juboo du ñu mën a ànd ndax seen tabia dafa opposé wante kii mu ngi bàyyee ci suuf mu di Adama ak Hawa kale tabiaam mu ngi bàyyee ci safara moo di Iblis jaan bàyyee ci Iblis jaan jaan yi ñooy jur chet jaan ju nekk rek cheytaane moo ko jur moo tax ci arab kalimatul jinneeg jaan dafay wutuwante cheytaan ak jaan ak jinne ci arab benn baat la bari na lu cheytaane yi wala jinne yi di soppeeku ay jaan moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ci mujjug e, téere risala da nga ko ci sekk waaye ay xadis la daana wax ne ku gis jaan ci madina na nga wax jaan ji ne boo ragalee yàlla bu fi feeñati ci waxtu wi soo ko ko waxee eh, gisaat ko ba man ñetti yoon nga rey ko xam ne jaan la boo ko gisaatul nga xam ne kooku jinne la te am na ci jinne yi ñoo xam ne dañoo dañoo gëm yàlla jinne yi nga xam ne ñoo daje woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ dañ dañ daan soppaliku jaan di nekk ci biir nit ñi te jinne melokaanam dafa doy waar moom day def te shakkul maanaam day am jël melokaanu keneen ak melokaanu leneen yàlla moo leen ko bindee abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu dafa doon tukki di tukki ba yàgg rek mu dégg mu gis benn ngelaw ak benn ci la mu daal di taxaw bu mu taxawee mu seen jënn jaan ju rafet ci wetu yoon wi mu dal koy jël xotti kaalam gi lëmas jaan ji gas ko suul ko ca la la yënguwaat mu dégg ngelaw li mu dégg benn waaye ngay yuuxu ca kaw ne ko suul ngeen saaba yonent bi alayhi salaatu kooku man ak moom rek noo des ci jinne ya doon wax ak yonent bi ca laylatul jinni kooku diw la loolu mooy tekki ne ñoom yatashakkaluun buur ne waqul naa ñu ne yaa aadam uskun dëkkal anta yow wa zawjuka ak sa jabar aljanata aljanna wa kulaa lekk leen minhaa ci aljanna ragadan yaatug dund xaydu shiituma fu leen neex ولا تقربا بولن جگه هذه الشجرة جل غرب فتكونا سبب سدنك من الظالمين چوي توانيا فأزلهما ترقص لولن شيطان عنها چلن لن تريون فأخرجهما مجني لن مما كانا چلن نكون فيه چلالو yàlla ne leen bu leen lekk garab gi boo demee ci chara yu bari dañuy sonn ci jéem a xam garab gi ak nu mu tudd nangam ak ki nangam waaye jarul sonn ndax garab gi comme ci aljanna la yàlla wax kon li wóor mooy nekkutoon fii te xam ngi du am benn njariñ te it lay njëriñ ci garab gi rek moo di ne ndeke kuy dund fii dañ la am lu ñu lay tere ak lu ñu lay digal loolu rek moo tax yàlla ne bu leen jegee garab gi waaye lu mooy loolu rek na ngeen ci daal di dem bañ ca lekkee nag yàlla daal di ne ah kon nag mbir maa ngoog waxoon naa bu leen ko def def ngeen ko kon fokk ñu war leen a yitt ci mel ni mbugal yàlla ne kon nag waqul naa ñu ne ihbitu wàcce leen jëm ci suuf baadukum leen ci yéen li baadin ci ñenn ñi àdduwun noonu lañ doon léegi nag yow jaan ak iblis ak ak aadama dootu leen bëggante mukk fu jaan sañ rek nit ñi jóg bopp bi daal di toj duñu juba mukk walakum ñeen leen fil ardi ci suuf mustaqarun saxuwaay wa mataaun ak xéewal ilaa xiinin ba ci jeexab seen ab dig fatalaqaa dal di saw aadamu aadam min rabbihi bàyyi ko ci borom kalimaatin ay baat aadama lekk gi mu lekk garab ga xawaa lekk na ko dara xewut ndax aam la waaye bi aadama lekk garab ga rek moom ma nekk xaas ndax moom la ñu waxee dañ leen daal di génnee ca aljanna ja <clears throat> aljana jooju riwaayaat yu bëree ngi ci bëggunu koo gaarlu ñii dañ la ndax mooy janatul xuldi ñu ne déeréet ab tool la bu nekkoon ci àddina docteur Nijaar moom loolu la wax daf ne ma ngi nekkoon ci muhitul haadi yi nekk benn jazira mu ne foofu la woon mu ne ay zalazil ak barakin ñoo fa jaar ba yàq ko ba dun boobu àddina am tukki loolu la docteur Nijaar wax ci xasasul ambiya te indi na ci ay barahin ay lay yoo xam ne yu dëgër la yàlla xam ndax loolu am naam déet comme hadis rotti ci duñ ci dogu waaye duñ ko weddi ba mu lekkee daal lañ ko tere woon génn na ca aljanna jooja wala ca tool boobu dem na dëkk ci jeneen àddina joo xam ne balaa lekk fokk dana sonn dana bay balaa naan fokk mu am ab teen léegi nag mu xam ne moom def na benn bakkaar bakkaar boobu nag lan moo ko dindi bul gëm nag ñi nga xam ne moom la masiix yoona yi di wax naan aadama bakkaaram boobule te xawaa ko ci dugal boo deme ca euh, linjiil linjiil dafa linjiil euh, injiilu mata boo demee di di ko liir daf lay wax ne bakkaar boobu nga xam ne moom la xawaa defoon lekk garab gi ba xiir ci aadama moo tax jigéen du mat du nekk nangam du nekk nangam du tolloo góor wax ci yu baree baree baree ba mu ne nag yonte la Isa mu mooy ki nga xam ne moo jël deretam jote ko aadama ñu rey ko deretam tuuru ndax ñu baal aadama alquran ne déedéet fa talaqaa na aadam min rabbihi mu bàyyee ko ci borom kalimaatin ay baat ay baat la ko boroomam sax mu wax ko ñu baal ko mooy rabbana dalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa na lanakunanna min alxaasirin baat yooyu la wax fa taaba mu nangu tuuba ali ci moom innahu yàlla wa moom attawaabu mooy nangu waa ko ñi tuuba arrahim mooy aji yëram qul naa ñu ne ihbitoo wàcc leen min ha bàyyee ko ci suuf jamian mboole seen waxoon na fale ihbitoo ne baadukum li baadin adu ne haat ihbitoo alquran ñàkkute fasaa bay def takraar waaye dafa am lu mu ci bëgg a yokk mooy bu ngeen dëkkee ci àddina soosu da ngeen di xaar nag danaa yónni ay yónint ku leen topp danaa ko yërëm ku leen weddi danaa ko mbugal موتا من يبطو منها جميعا فإما ياتينكم ندم ديكلنا لين مني بايكو من هدن أمجب فمن تبعكو تبنا هدايا سممجب فلا خوف ديت رجل عليم تي نيوم ولا هم دين يوم يحزنون ني تيت والذين نيغا قامنا كفروا ويدنا سن برام وكذبوا ني آه، القران جي بآياتنا تي سن كاوتي اولئك نيونو اصحاب النار ني برام السفر خالدون وي بيلو لن بيلو ماي سخ fiyaa ca safara soosule bay na loolu tàmbali na nag di waxe ak banu israil banu israil la tàmbali dana wax ak ñoom fii ndax bi muy tàmbali saar wi téere bi la njëkk a wax bi ngay jàng gannaaw gi mu indi la nit ñi ni ñu wuutee gannaaw gi mu léeba léeb ci naafeq yi gannaaw gi mu santaane ni ñu war a jàmm yàlla gannaaw gi moo indi tegtal buy wone ne alquran fi yàlla la jóge gannaaw gi mu xupp ñi weddi bégal ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla mu indi ay lay ci kaw yéefari yi ba lottal lu luy feeñal kàttanu yàlla mu waxtaanee ni yàlla bindee aadama ak ni mu ko teralee mu daldi tàmbali nag bëgg a waxee nag ahlul kitaab mooy yahud yi ndax ñoo fa gënoon a bari ndax ñoo gënoon a bari te amoon nañ benn position maanaam fu ñu taxawu yonent bi kon ñooñu la bëgg a waxee ni ñu gisee yonent beeg ni ñu gisee alquran kon yahood yooyu lay wax israil nee nañu kalima ibriya la nee nañu isra mooy abdu il ci làkku yahuud moo yàlla abdullah loolu turu yaqub la woon kon yaqub mooy israil abdullah kon bu ne israil mooy yaqub ay doomam nag lañuy ñuy xamee yahuud ñépp ñu bàyyi ko ci moom ñoo tudd yahuud taawam moo doon yahuda ñoom moo tax ñu leen di wax yahuud soo ne yahuud yaa ngi leen askane ci yahuza ibnu yaqub soo ne bani israil yaa ngi leen askane ci yaqub jëlaalay ni nee na ndax israil yaqub la ci boppam wala fami ba yëpp moom daf ko laajte léegi nag buur na yaa bani israil ee eh yéen bani israil uskuru fàttaliku leen nicmati ay xéewal sama muy fukki xéewal yoo xam ne yàlla jox na ko bani israil def leen koy ñaxee ne ndaxam dee waay maa leen defal nangam ak nangam bu ngeen weddee ki ma yónni it xéewal yooyu lay wax naan ana amtu aleykum waaw foo matal leen bi ahdi sama kóolëre ndax waxoon ngeen ne ku ma yónni da ngeen ko gëm fi kon may dinaa matal bi aadikum seen kóolëre ba dugaleen aljanna way yaaye man yàlla daal farhabuni ragal leen ma wa aminoo gëm leen bi ma anzaltu ci lima ma mu musaddiqan mu nekk di aji dëggal li ma ma akkum nekkoon ci yéen téere bi ngeen yore woon wàccee naa téere buy dëggal booba kon gëm leen bi la it wala takunu bu leen nekk awala kaafirin njël benn ñey weddi bii ci téere bi bu leen jiite weddi gi wala tashtaro àddina mii bu mu leen jaral moos ngeen di weddi alquran bëgg nekk ay sang bëgg nekk ñi yore tawraat ñëpp di leen topp loolu mooy àddina bu leen ko jaay mukk moom gëm alquran ji àddina moom le bu leen ko ko jëndee looloy walaa tushtaroo bu leen jëndee bi ayat yi ci samay kawtéef sama nan ak njëg goo xam ne xalilan aji tuuti la ko defee nag sa mbokk moom sant jaw yaakaar ne mooy nga bind benn orko dal di ko lem ñu jox la ci juróomi dërëm nga ne al tuuti na kat ndax wala tashtaru bi ayati samanan qalilan fekk waxut loolu dafa bëgg wax ne aaya alquran ji bu leen ko jëndee adina adina bu mu tax ngeen di ko weddi loolu wala tashtaru bi ayati samanan qalilan way yaaya man yàlla daal fattaqu ragal leen ma wala talbisu bu leen jaxasee alxaq dëgg bil baatil baatileeg caaxaan wa taktumu ngeen ba xaq dëgg ga wa antum te yéen taalamuuna ngeen xam ne mooy dëgg wa aqimoo taxawal leen salaatu julli waatoo joxe len zakata asaka war ko len julli leen maa raakiina ngeen ànd ak ñi nga xam ne ñooy julli di ruku ak sujjoot legi nak mu ngi ñew ci wal yahud moy borom xam-xam yi nga xamne ñoo ci bani israël ñom dañuy waar nit ñi di len digal ne na ngeen julli na ngeen bax na ngeen saraxé na ngeen def nangam nangam ah na ngeen sax ci gëm yalla gi te ñom nak saxuñ ca ndax ñoy jité yaq gi sama borom ne xana kon yéenay sondel da ngeen di tak rek di leral kenen waye di di lak sen bop yalla ne atamurun ndax da ngeen di digal naa sa nit ñe bil birri ci baax watan saw na ngeen fàtte an fusukum sen bop wa antum ti yéen bi ngeen kay def tatluuna yéen a ngi al kitab tere ba afala taqilun qana amulen leen xel gis nga qur'an balaghe bi ci nek atamuruna bil birri watan saw anfusakum bu lol loolu dong la sax du yemu waaye waxtu wi ngeen koy def wa antum tatluuna alkitaab kon xanaa da ngeen a dof yéen a ngi jàng téere bi mu leer nañ ngeen xam li ci ne ngeen di ko digal nit ñi te fàtte seen bopp te bés bu na ngeen di ko jàng xanaa xel newu fi wastainu na ngeen dimbandikoo bi sabri ci muñ ndax eh, di ndigal yàlla yi topp ko fokk dafa ajoog muñ dafa metti wa salaati ak julli itam way naa naka julli la kabiratun lu jafe la illa alal xaashiin lu may ñiy toroxlul yàlla ñooñu julli di leen jafe alladina mooy ñi nga xam ne dana ñu woolu kooku jaanibu al yaqiin yarjax ala jaanibu danni duñu wax yadunnuuna jortu yadunnuuna danañu wóolu la ne annahum nak ñoom mulaaqu rabbihim way dajeeg seen borom lañ wa annahum nak ñoom raajiuuna way dellu si lañ ilay jëm ci yàlla yaa bani israil uskuru fàttaliku leen nicmati ay xéewal sama alati yi nga xam ne an tu xéewal naa ko aleykum ci yéen waa nii man faddaltukum mooy gënal naa leen alal aalamina ci bindee fi mooy yéen bani israil yonente yooyu yépp ci jamono jooju ci yéen rek la daan génn kooku xéewal la mënoon ngeen ci sant yàlla ba topp ma wattaqu ragal leen yow man bis boo xam ne si jotee laa si du jëriñ nafsun bakkan an nafsin ca morom ma cheyan dara loolu doy na waar boobu moom bu alquran bu ci dara wàccutoon lu mooy loolu ñun ñëpp ñu mën a ku ne mën a mën a jël say dàll xam fuy jëm wattaqu yawman laa tajzi nafsun an nafsin shay'a ragal leen bés boo xam ne su ñëwee amul benn bakkan buy mën a jëriñ morom ma tus boo doon wax naan moo yàlla baalal diw ku baax la it yàlla ne walaa yuqbalu deeful nangu min haa ci moom shafaatum ramm yàlla baalal ma diw mu ne sa ramm moo duñ ko nangu boo doon wax ne ku jubla woon di ko maandoloo yàlla ne walaa yuuxadu deeful jël min haa ci moom adlun génn maando kon nu ñuy def walaa hum deen ñoom yunsaruuna def fi tere leen walis mbugalam yàlla mi nasru yi ndimbal la waaye du firi loolu fii defu tere leen lan koy firee ci biir téere bi bokk na ci léegi nag mu ngi lim xéewal yi nga xam ne yàlla jox na ko bani israila mu di fukk benn bu njëkk bi mooy man yàlla maa leen musal ci firaw na ba ngeen jàll ci géej gi rëyul leen ba muy rey ñu góor ña di bàyyi ñu jigéen ña mu musal leen ba yéen ñëpp deewu leen ci ñaareel ba mooy ba ngeen ñëwee ci géej ga man maa ko babu Musa do doree yet ba ngeen am fu ngeen jaar ñettel ba moo di ne bi ma leen waxee tub leen ngeen bañ a tuub man yàlla maa leen baal bakkaar boobale ñeenteel ba mooy ba ñu joxee Moussa tawraat muy téere buy teqale dëgg ak fen loolu ci xéewal yi la juróomeel ba na ngeen fàttaliku ba Moussa ba leen fi Moussa bàyyee ngeen di jaamu aw yëkk te booba Moussa ma ngay woor ñeen fukki fan guddeeg bëccëg ngir jotab téere yéen ngeen di jaamu aw yëkk te man booba maa leen baal te su ma leen baalu toon bon yéen ñëpp bon ngeen dal di alku mu ne ba tey juróom-benni ne xéwal ya moo di ne ba ngeen waxee ne Moussa won ñu yàlla ñu jàkkarloog moom Jibril xaacu leen yéen ñëpp ngeen dee ci saasi man yàlla maa leen dekkal defaat leen ay nit loolu xéewal la mu ne juróom-ñaareel ba yent yàlla musa alayhi salaatu wasalaam ba mu laxasee jógee jóge palestine ne day xeex ak jabaabirati yi nga xam ñoo ca sham moy nitu iwaja ya. ñom ñu genn lank wor ne ñu dem yalla na natu len ñu gëlëm gëlëm dem bo fu ñaan waadu tiha ñu gëlëm fa waadu tiha ma ngi nek diggante sham ak égypte sax nañ fa lu man ñeen fukki at and ak musa gëlëm duñu dem duñu dik fofa taw nekku amul garab amul dara Musa moy sam payet wi mu nek ker Moussa mooy dóor ci xeer fukki sew ndeg ñaar ñëw Moussa mooy eh, ñaan yàlla mu génne leen yàpp gëmmant ak ay gàttu ñu di ko lekk mu ne ngeen a fàttee góog a xéewal mu ne bokk na ca ma leen di wàcceel taru sumaana ak taran jabil mu ne juróom-ñeenteel ba mooy ba ngeen di dugg baytul maqdis maanaam ngeen ñëpp na ngeen dugg baytul maqdis di sujootal yàlla ngeen lànk ku nekk di sujootee genn wàll jë ba ñu yëkkati xeer yu mu tim leen way na takk naa bi mu aljabal mu nekk ci seen kaw loolu gëtëréwul yàlla moo leen moo leen baal bàkkaar yooyale mu ne fukkeeli xéewal ya ci bani israil mooy bi nga xam ne Moussa mar ngeen ci ci waadi tiha muy dóor ca daj woowo euh, ndox mi di génn ngeen di naan kon nag fukki xéewal la ngoog yu leen yàlla defal yoo xam ne yéen bani israil waroon ngeen ci mën a jaar bëggam yàlla ngir sant ko moo tax mu ne wayis na jinaakum fàttalikul ba ñu musalee leen min ali firawna na ko muy togg leen soola azabi ñaaw ak mbugal yu dabixuuna ñuy rendi abnaakum seen doom yu góor ya sax wa na ñuy desal nisaakum seen jigéen ña wa fi dalikum nekk na ca ku juddu di góor ñu rey ku juddu jigéen ñu bàyyi balaawu nattu la azimun bu màgg nag min rabbikum bàyyee ko ci seen borom wa na farraqna fàttalikul ba ñu teqalee